mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu bi jotee ngeen di teelu seen émission bi di SOS santé tey SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Issa lay Diop moom Issa Laye Diop nekk infirmier d'état waaye tamit nekk responsable de l'éducation et de formation pour la santé nekk tamit point focal de santé communautaire bu neew Issa ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye tam di la jaajëfal bu baax a baax ci nangu bi ñu nangu wuyul ndax xam nañ ne yi tey bëri na yoon bi metti na mais terewul nga bàyyi lépp donc pour loolu rek ne que pour saa ñu ngi lay wax jaajëf waaye tamit di la wax dalal ak jàmm ci Rewmi FM. waaw soxna Daba ñu ngi lay jaajëfal la koy delloo parce que di dafa doon li nga xamante ni lu am solo la parce que jamono ji toll daf ko laaj. même bu ñu nekkoon si yitte yu gën a kii dañ koy bàyyi ñëw buy sa woote bi pour mën a dafa geew émission bi lépp li nga xamante ni mën nañ si dimbale askan wi rek daañu ko loo ñu si mënti laaj léegi ñu si mën a xam rek dañ ko Mm-hmm. dañ ko jébbal askan wi pour ñu gën a mën a am ay mbir yu gën a leer si si si li xew si jamono ji mm-hmm. dañuy tàmbaleeg waxtaan wi rek ci li nga xamante ne moom moo di santé communautaire dañuy dégg chaque fois santé communautaire euh, de manière un peu plus explicite santé communautaire lan la ëmb waaw bu ñu xoolee euh, la santé communautaire bu ñu xoolee la santé communautaire c'est plus comme ni ko tur bi tënkee santé mhm. communautaire en général euh, dañuy gën a point yi ñu gën a présenté lu si zone yi mooy les communes communes yi nga xamante ni gis si ëpp ñooy nekk si village yi mhm. xam nga si village yi nekk si département yi foofu la foofu la foofu nañuy gis difficulté pour euh, paj bi mhm. ñu gën si ñoom ñu mën a jot paj mu gën a baax mm-hmm. tamit gën a mën a jot information yi nga xamante ni ñooy information yu baax yi mm-hmm. boo xoolee pour euh, xeex loolu moo tax ñu créer li ñuy wax la santé communautaire mm-hmm. léegi nag si biir santé communautaire boobu dafa am ay acteurs yu bari yi nga xamante ne ñoom ñoo koy joué te acteurs yi génnul les les les les personnes yi nga xamante ne ñoo lekk ci commune boobu si gox boobu si gox boobu nit ña fa nekk mooy les porteurs de voix yi fa nekk ak les personnes yi nga xamante ni euh, bu ñu waxee daan leen déglu euh, cadre yi nekk foofu ñooñu lañuy tànn xamante ni daan leen mën a xamal mbir yu bari ba nga xamante ni ñoom daañu mën a doon ay relais après delloowaat ko si si si si jàllawaat ko ci population bi. Mhm. Ah, en général loolu mooy. santé loolu mooy santé communautaire waaw. Mhm. Euh, comment est-ce que ngeen di defee approche bi su ma la déggee santé communautaire euh, dañ ko jagleel ñi nga xamante ne certainement ñoom ñoo nekk ci gox yi approche bi ngeen di def avec euh, les les les personnes ñu dëkk ci noonu comment est-ce que vous vous y waaw approche bi. Euh, dafay doon li nga xamante ni li si ëpp si communication lay doon. Mm-hmm. communication lay doon parce que loo gis rek communication la parce que dañuy dégg information yu bari wala nga xamante ni euh, day am ay mbir yu bari yu xew euh, ñoom duñ popula majeure partie de la population duñ ci am duñu am les bonnes informations léegi nag ñun les agents yi nekk si gox bi dañuy. Euh, convoqué suñuy relais suñuy bàjjenu gox. Mm-hmm. xam nga ak suñuy ASC ak suñuy DSDOM ak suñuy matron joxal leen ay ay ay ay formation ay briefing yi nga xamante ni si li ñu bëgg askan bi xam ko. su mm-hmm. boobaa ñoom après ñoom ñooy relayer information mu dem. Mm-hmm. léegi nag approche yi tamit bari na approche yi bari na boo xoolee si wàllum ëmb bi ak imbi bi. ah wàllum li ñuy wax tuberculose bi. wàllum sibiru bi ah wàllum vaccination xale yi PV bi yooyu yëpp c'est des yi nga xamante ni dafa bokk ci approche santé communautaire. Mm-hmm. Ah, te loolu depuis ñu commencé depuis ñu ko commencé en 2013 am na lu bari lu mu yokk ci ci ci ci ci ci ci liggéey bi. Mm-hmm. ba nga xamante ne tey jii suñu système de santé bi am na problème yu bari yu mu yu mu doon jàkkoonteel tey bi ñu duggee relais ak euh, bàjjenu gox yi si côté boobu noonu si wàllum santé communautaire vraiment gis nañu euh, am nañ si évolution bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, dañuy des ci approche boobu ba léegi ah am na ay jàngoro yoo xamante ne tudd nga ko fii lu ci mel ni tuberculose. grossesse ak euh, surtout li nga xamante ne moom moo di vaccination fii nag am na ñoo xamante ne même si tendance bi commencé na wàññeeku mais am na ñoo xamante ne dañu xaw a réticent ba léegi ci li nga xamante ne moom moo di vaccination ndax euh, yow fi nga nekk muy centre communautaire bu Guinguinéo il vous arrive des fois ngeen faratal di dajeek ay cas yoo xamante ne dañu am ay idée euh, yu xaw a nekk ci seen bopp jëm ci vaccination day wàññi xeet bi donc ay préjugés sujets yu a daal. waaw boo gisee ñuy wax santé communautaire tamit ak tamit euh, comme beneen kii bi beneen point focal bi ma nekk muy. Euh, e PIPS bi mooy responsable de l'information de l'éducation pour la santé pour lool la. Mm-hmm. pour ñu joxe les bonnes informations tamit pour dalal nit ñi seen xel parce que euh, ñun ñuy fajkat yi ñun ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi nga xamante ni ñooy gëstu ci wàllum. paj si wàllum vaccination si wàllum peut-être bu ay campagne amee di joxe ñu war a jox ay ñu war a déparasiter xale yi. Mm-hmm. wala leen jox ay vitamine A pour seen croissance yooyu yëpp buñ koy tàmbali du tee dina am ñi nga xamante ni dañuy réticent. Mm-hmm. waaw loolu moom du si ñàkk mais boo leen dégloo foog nga dem jege leen boo leen jegee nga déglu leen lu tax. nangu leen ñu ñàkk seen doom lu tax nangu leen ñu jox seen garab doom lu tax lii ak lii ñoom daañ la wax léegi nag yow yaa xam léegi nag yow noo leen di tontoo ba nga xamante ni di nga leen mën a convaincre ba xamal leen ni li wér-gu-yaram kese moo ko tax a jóg mais nekkul pour gaañ parce que ñun ñëpp ay nit nañu mhm. bon suñuy doom ah nañuy <laughs> campagne jotee dañ leen di jox garab ñun tamit bu dee campagne yi dañ si war a jël en général pour gën a am approche bi sax ñun dañuy dem sur place te teg suñu garab ñu ñu naan. ñun hmm. ñu gis. xam nga comme ah, phase test comme phase test ne ah, comme docteur naan na ñun dañuy naan. Hmm. damay si sëriñ bi nga xamante ni moom tamit ah, nangu na ko dem si jumaa ji jour àjjuma bi muy julli ñu mu def si xubba ñu jox ko mu naan. comme bi ñuy dem si Covid bi. Mhm. genre stratégie boobu lañ jël. ma mhm. ci si dellu si. Mhm. Euh, loolu mooy tax waxtaan échange. communication loolu mooy tax euh, ñuy mën a atteindre suñu objectif si bépp si bépp si bépp euh, campagne walla bépp bépp programme bu ñëw du ñàkk nit ñi ñenn ñi bañ. mais bu ñu xoolee gox bi ñu nekk. alhamdulilah presque bu ñu à chaque kii bu am programme bu am presque da ngay gis quatre-vingt-dix-huit 97 pour cent yi xam nga dañuy atteindre seen objectif. Mm-hmm. muy dans tout le département de Guinguinéo nag. Mm-hmm. te loolu dafa doon li nga xamante ni côté communication bi dafa xaw a am doole foofu. Mm-hmm. waaw parce que nit ñi gëmuñu nit ñi nit ñi nit ñi en général li ñu xam ak li ñu bëgg mooy ku wax ak ñoom surtout villageois. d'accord parce que foofu ñun suñu commune suñu suñu commune yëpp presque ay village la te village waa xamul ku ko yëg xamul lenn lu dul ku wax ak moom boo ñëwee wax ak moom nga yëg ko déplacé wu dafa ak moom lépp lépp la bëgg dala koy defal moo tax approche boobu li si ëpp ëpp moo tax en général suñuy suñuy suñuy suñuy difficulté si côté boobu lu bari mhm. waaw ba xawoon nañu ngir ay jafe-jafe sax mhm. si côté covid bi mhm. xawoon nañ si am ay jafe-jafe parce que mhm. ak réseaux sociaux yi xam nga ak message yi ñuy véhiculé yooyu yëpp dafa doonoon ay problème yi nga xamante ni après deuxième vague bi ñëwoon nii bi ñu bëggee tàmbaliwaat suñuy programme érage de vaccination muy PV pour xale yi nga xamante ni loolu dafa mas a am ban daan ñëw sax pour vacciner xale yi PV mais gars yi yaakaar ni covid bi mooy tax dañ daan mujjee am problème boobu sa gars yi dañu yaakaar ni Covid bi mooy tax ñu ñu ñëw après ñu ne leen non lii du Covid problème Covid du vaccin Covid bokk la moom lii vaccin bi du amoon la après nag si leen doogaa di xëy na waat ñëwaat di andi seen i doom ñu leen di ñàkk. dégg nga léegi nag euh, moo tax lépp loo gis rek communication la. lépp loo gis lépp loo gis waxtaan la waxtaan la waxtaan la muy imam yi di sëriñ si di chef de village yi. muy tamit euh, enseignants yi nekk ci dëkk bi surtout parce que ñoom ñooy borom ñoom ñooy xalaat foofu ñoom ñooy jàngal xale yi en général ñoom parents yi li ëpp dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy wax ak ñoom moo tax tamit di leen impliqué ci liggéey bi tamit dafay baax trop trop trop dafay baax loolu daal. Mm-hmm. en général mooy li nga xamante ni euh, daañu ko jàngoonteel foofu mm-hmm. mais. lépp loo gisee communication la. suñu communication bu baax mi nga xamante ni ñu ngi koy def. Adjara dañuy mën a atteindre suñu objectif bu baax euh, kon euh, vous misez sur la communication pour gën a mën a atteindre euh, seen cible wax nga ko léegi vaccination PEV dafa bokk ci li nga xamante ne moom moo di du tout tànk yi mais bi ñu demee ba corona bi dugg ngeen xaw ci am ay jànkonteel réticence boobu noonu est-ce que sa a été facile pour que ngeen am un retour bi ngeen naan farataal di am. waaw moo tax bi ñu defee bi ñuy def suñu réunion de coordination yi. Mm-hmm. après bi ñu xoolee euh, objectif yi ñu woon atteindre après gis corona bi dangay gis euh, si antigènes yu bari hmm, dañu gis atteindre objectif yi. Mm-hmm. parce que day am ay fièvre jaune am ay rr am ay polio am ay penta am ay kii dangay xool presque euh, mujj gi ku waroon am vingt ku waroon vacciné vingt xale. si mois bi da ngay gis léegi ay cinq xale lay vacciné léegi après bi ñu defee réunion de coordination bu ñu xool def évaluation bi dañoo gis ni kat cible yi wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. après ñu posé wu la question léegi nag si ngeen xam ni kat Covid bi tax moo tax nit ñi kii léegi nag après si nañu nag duggaat ci askan wi di waxaat di waxaat ba tey jii. Mm-hmm. alhamdulilah. Mm-hmm. tey jii nit ñaa ngi ñëw di vacciner seen doom yi normalement. Mm-hmm. waaw mais après Covid bi deuxième vague bi jafe-jafe yi xawoon na am mais alhamdulilah léegi gars yi ngi reprendre di di di di ñëwaat si si si. di def mm-hmm. euh, ñu ngi wax euh, troisième vague mais ndax xalaatu leen ne bi la yoon moom la réticence dina gën a xaw a dëgër parce que euh, bu ñuy waxtaan ci li nga xamante ne moom moo di variant delta bi wax nañ ni sax ñi nga xamante ne ay adolescents lañu du leen du leen may dara contrairement ay yeneen yi nga xamante ne dañu jàppoon ne il faut nga am benn âge bi quarante cinquante jëm kaw mais dernière information yi ñu ngi xamante ne dix-huit ans sax ils sont exposées au même titre que les si pour euh, wàllum euh, troisième vague bi. troisième troisième vague bi. Mhm. dafa am ay man ni ma ko gisee dafa am ay points positifs ak ay points mhm. parce que points positifs yi tax na nit ñaa ngi daw si waat vacciné wu. Mhm. parce que dañu ragal troisième vague bi tey jii euh, même suñu antigènes yi ñu am tey jii dafa manqué. parce que la nit ñi dañoo daw. dañoo ñëwandoo. ñëpp dañoo ñëwandoo au début dañ bañoon parce que xamuñu woon exactement njëriñu vaccin yi moo tax bi deuxième vague bi ñëwee ba vaccin yi ñëw man fi ma nekk parce que foofu laa dund affaire bi parce que ah, damay consulter ah dañuy jànkoonteeg ak maladie en plus ñu ngi dugg si askan wi du wax si consultation yi ñu daan def rek chaque jour daaw nan am ay trois à quatre cas cas de Covid positif. Mm-hmm. daanaka am. Mm-hmm. bon ay guérison ay décès xam nga mais na daan dem ba suñu saal yëpp dafa daan fees xam nga. Mm-hmm. Euh, moo tax il faut que état bi jub surtout si àll bi. si régions yi jub jàppale leen. xam nga parce que tey bu Dakar bu demee ba fees kon région yi nan nan la war a mel communes yi nan la war a mel. loolu dañ ko dund. Mm-hmm. gis ay cas Covid di dund ñoom di leen faj ak ak euh, amul benn moyen de protection gants masque sur blouse xam nga noonu daan liggéeye mais alhamdulilah ba yàlla ñu ngi di ñu suturaal bi bi ñu àndee vaccin bi teewul am na ñu bañoon mm-hmm. mais ku ñu hospitalisé nga nekk à un âge avancé wala nga am ay comorbidité ak ñun agent de santé yi bi ñu vacciné ñu ñëpp dañoo gis ni ah cas yi dafa commencé di wàññeeku deuxième vague bi laay wax man fi ma nekk ak Guinguinéo mhm. bi ñu tàmbalee vaccination bi tag rek dañoo gis presque cas yi di wàññeeku mhm. ba nga xam dama ba ñu dem ba amatuñu benn kaar maanaam danañ dem ba amatuñu benn cas. Mhm. fan yi rek sa fait deux semaines dañ mhm. commencé waat di am ay cas. comme comme comme comme au Sénégal. waaw comme partout au Sénégal. Mhm. donc euh, si loolu laay wax moo tax si fan yooyu eh, mask kii woon convoqué woon nañu les imams pour sensibiliser leen si wàllu vaccination yi. bu ñu toog ak imaam yi di waxtaan ak ñoom man la woon ak sama médecin chef de district docteur waxtaan ak imaam yi dañ leen déglu. imaam yi ni ñii man vacciné naa boo jëlee cinq imaam kenn vacciné wu kaati vacciné wu léegi ñu laajal lu tax vacciné wu leen ñu ne ñu bi ngeen di andi vaccin yi ak bi corona bi ñëwee waxtaanu leen ak ñun. Mhm. da ngeen beddi woon da ngeen ñëw rek ñu tëj jàkka yi. ah ñoom loolu la ñu wax. Mhm. imaam yi si bopp ñoo wax loolu ñun yéen da ngeen ñëw rek tëj lañu jàkka yi dangeen ñëw rek ni ñu. fermé fermé tout tout te waxtaan te yéen ñëw leen waxtaan ak ñun. au préalable au préalable ñun ñun nag tamit ñu toog suñu ruq ku ñëw suñu ñun laaj ñu ñu ne ñu ñun suñu nekk si imaam loolu la tontu moo tax ñu ne ñun en plus tamit vaccin yi ñëwee tamit kenn ñëwul si ñun ñu ne ñu vaccin yi nii ak nii ak nii. Mm-hmm. ak yi moo tax ñu toog nangu ñu vacciné wu nii ak nii ak nii léegi si biir loolu ñun tamit ñu déglu leen jël note après nag ñu tontu leen. Mm-hmm. liñ leen tontoo ñu waxtaan ak ñoom en conclusion lu ñu wax ñu ne ñu yéen lii bu ngeen ko tàmbali woon kon tey ñun ñëpp vacciné wu nañu. Mhm. ba nga xamante ni ñii ñëw si jumaa ji julli sax. daañu mën a wax ak ñoom ba ñu ñëw vacciné wu. Mhm. bi ma jëlee parole man ne leen vaccin yi baax na man li tax may wax loolu parce que dund naa ko j'ai vu des malades fees nañu ay malades am corona beneen bi tamit ay temps. daa ngeen dégg tàgge yi bari loolu ci jumaa yi chaque une nga dégg tàgge ci jumaa imaam yi ni ma waa loolu dëgg la mën leen tey déggati ngeen tàgge ñun ma déedéet ñu tàgge man leen loolu mi ngi xew ba vaccination yi commencé ñun ma wax nga dëgg man leen kon nag vaccination yi am na njëriñ nañu fexe yéen ñëpp mu jigi imaam yi promettre nañu vendredi ku nekk na ngeen ñëw ci jumaa yi ñu def xuba ñu def ci xuba ñu fexee ñàkk ñu ñàkku si kanamu. fidèles yi fidèles yi xamante ñoom daañu mën a xam après daañu mën a ñëw ñàkku. Mhm. léegi nag loolu ñu li si jëlee mooy la communication communication moom manqué woon foofu. Mhm, communication bi moom manqué woon foofu tey jii imaam yooyu tey jii ñoom ñëpp ñàkku nañu. tax na ba fidèles yi bi ñu déggee tamit troisième vague bu di ñëw gars yi dañoo ñëw ba vaccin yi sax jeex tàkk muy ak gin Guinguinéo muy sur Kaolack muy su commune bi yëpp. vaccin yi dañu jeex ba nit ñi léegi dañu ñëw sa di kaas dañu ñëw di kaas naan vaccin yi vaccin yi mais bon <laughs> loolu mu ngis dara mm-hmm. liñ si li ñu mën mooy ñu wax leen ñu gën a moytu rek mooy mesures yi gars yi nga xamante ni wax nañ ko mooy les mesures barrières ak euh, lavage des mains xam nga avec l' antiseptique yooyu yëpp daal ñu fexe ko moytu loolu daal moo fi nekkagum pour l'instant ba nga xamante ni vaccin yu gën a ñëw ku nekk mën a mën a mën a mën a mën a jël sa vaccin. Mm-hmm. parce que vaccin yi tamit baax na baax na ñun bu ñu xoolee ci liñ jot a dund vaccin yi baax na. Mm-hmm. waaw vaccin yi baax na xam naa ni buñ ci gënee xóotal. Mm-hmm. daan mën a wax euh, nit ñi bu ñu vacciné woo en masse lu muy jur. vraiment est-ce dana tax. feebar wàññeeku wala est-ce que dana tax <laughs> feebar bi bañ wàññeeku. Mm-hmm. Euh, vaccin bi Issa Laye baax na ah wax nga ko vaccin bi baax na mais dafa am ñoo xamante ne ils te disent que vacciné nañu jël nañu seen euh, deux deux injections yi ñu war a def jël nañ ko mais terewul dañuy présenter ay symptômes yoo xamante ne euh, dañuy ne dañu am corona ñu bëggoon xam rek ndax kon vaccin bi efficacité comme les autres médicaments dafa des. parce que vacciné wu nga ok première dose deuxième dose soo rechuté waatee am feebar bi loolu aussi benn instant boo ñu ko mënoon expliquer pour ñu koy déglu oh, yaakaar naa retour bi dina am solo. d'accord léegi vaccin yi pour l'instant au Sénégal dañu wax ñaari façon vaccin boo fi ñëwagum woon muy le sino muy Sinopharm bi. ah Sinopharm c'est efficace à à quatre-vingts pour cent. Mm-hmm. ci li ñuy wax. Mm-hmm. efficace à quatre-vingts pour cent donc ça reste vingt pour cent yi nga xamante ni. ah du la ko du la du la ah, astra bi ñu ngi naan ah, quatre-vingt-un pour cent xam nga moom tamit si loolu la loolu la couverture boobu la am donc moom tamit presque pour cent moom tamit léegi vingt pour cent yooyu des xam nga lu muy lu mu bëgg a wax foofu mm-hmm. mooy xam nga 20 pour cent de chance yi nga xam ne tamit feebar bi mën na ñëwaat parce que couvrir à 100 pour cent bu doon pour cent sax kon tey ku amaat ko ku vacciné wu am Covid ñu mën a wax ni kat. ñu mhm. mën a ñu mën leen jam ko mhm. mais comme jël nañu benn mesure bi nga xamante nee nañu vingt pour cent donc mën nga ñàkku say deux doses. waaw amaat Covid. Mhm. mais Covid boobu ngay am du doon Covid bi nga xamante ni euh, Covid bu bu bu cas grave lay doon. foofu foofu yow mi vacciné wu ah ak yow mi vacciné wul. ki vacciné bu amee Covid ak ki vacciné wul bu amee Covid ki vacciné moom kaa am mooy kooku gën a gaaw a wér te kooku kaa am tamit du du du. du ga gaaw a doon cas grave. te mm-hmm. ki nga xamante ne moom vacciné wul kooku mooy gën a am chance pour pour pour pour gën a feebar. pour gën a mm-hmm. nekk cas grave. Mm-hmm. léegi euh, vaccin yi loolu la. parce que kenn waxuñu cent pour cent. waaw vingt pour cent nañu wax donc. ku ko amaat rek xamal ni loolu waxoon nañ la ko wax dëgg yàlla. foofu mm-hmm. tamit fu ñu bàyyi xel bu baax a baax. Mm-hmm. paas loolu. Mm-hmm. si biir loolu tamit dafa am leneen li nga xamante ni parce que man instant bii nii bon euh, dañuy simplifier les choses rek bañ a dugg si affaire scientifique de trop de trop de trop. dañuy wax ñi li nga xamante ni ñun ñun loolu la ñuy dund. ma nekk nii man loolu laay wax man li may dund. Ah, si sama wàllum métier ak si wàllum corona bi ak si wàllum paj mi hmm, loolu laay loolu laay bëgg expliquer nii boo xoolee trois premier vague bi ak deuxième vague bi ñu ngi woon au cœur jànkoonteeg nañu ay ay ay ay Covid xam nga amaana sax boo demee sax Covid na ñëw. ba ba Covid ba waaw. na xam li ma wax. Mm-hmm. bari tey jii moment bi may wax ak yow am na fu bari service yu bari yu bari Covid na xam nga mais duñu loolu duñ ci mhm. troisième vague bi ah, fee ma nekk à Guinguinéo suñu premier cas ça fait deux semaines man maa ko recevoir man maa recevoir suñu premier cas ça fait deux bi mu ñëwee maa nekkoon te bi mu ñëwee ay vingt mu ñëwee mu tàkk maskam man tam ñu fekk lépp lu ma waroon mhm. ah, nekkee man ngi ko nekkee takk sama mhm. masque soo samay gant bu ñëw en consultation ma recevoir ko daf interrogatoire bi mënu ma lu ma dafa looy yëg mënu ma damay sakkat sama yaram ba day tàng xam nga mu gis ko mu yor ay garab xam nga ma ne ko foo jógee parce que boo xoolee nit ki si ni mu soloo rek ak ni muy dundee da ngay xam ne kii. est-ce que il du village. Mm, ok wala ndax feneen la jógee. feneen la nga xoolee rek xam naa ni kii jógewul fii. ma laaj ko foo jógee mun ma Dakar laa jóge. Mm-hmm. Dakar bi ñu nekk tey mun ma Dakar laa jóge ma ne ko euh, kañ nga feebar mun ma ça fait trois jours. Mm-hmm. ma ne ko jël nga ay garab constatation mun ma waaw mu jëlee garab yi ma ne ko d'accord ma ne ko loo yëg si yaram mun ma damay sëqat sama yaram dafa tàng. man daal am aw ma jàmm ma ne ko kaay yéeg ñu yéeg table de consultation bi ma xool ko pare mu nekk à quarante degré. de température. température léegi si la ak isolé. di mhm. bëgg benn chambre d' isolement ñu isolé ko woo le responsable bi yore wàllu pàcc kii bi wàllu prélèvement ak yooyu expliqué ko cas bi ñu ànd dem seet ko mënuma léegi dañ koy prélever après ñu toog waxtaan ak moom mu d' accord. Mhm. xam léegi bu mu d'accord ñu prélevé ko le lendemain résultat bi génn mu positif te si biir loolu euh, avant ñu koy prélevé mu ne ma docteur def naa sama deuxième dose Astra ça fait trois jours. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu ma def sama deuxième dose Astra ça trois jours. Mm-hmm. ma ne ko bon vingt pour cent nañu wax des na. donc il faut ñu def rek. mënu mënu mënuñu d' accord duñ defee mais dafa revenir positif xam nga ñu isolé ko commencé le commencé traitement bi trois jours la def amatul benn benn benn benn signe après ñu génne ko ñu ñu exécuté ko ba mu demee kon ne toog këram jël ay garabam avec toutes les mesures conseils yi ñu koy jox yëpp donc c' est pour vous ni euh, feebar baa ngi fii mhm. ah te boo xoolee cas bi ma wax nii presque presque dafa regrouper lépp. Mm-hmm. si li ñuy tey jii li ñuy waxtaanee yëpp dafa regrouper. Mm-hmm. parce que mën nañ ko wax cas ak mën nañ mën nañ wax ni kaa importé la. parce que Dakar la jógee. xam mm-hmm. nga ñëw si commune bi. xam nga boobu te bi muy jógee Dakar di ñëw si oto la dugg. donc am na ñu mu nekk en fii Dakar tamit si si mu liggéeyee tamit am na ñu mu fa nekk en mais bi cas bi ñëwee léegi bi résultat bi ñëwee positif dañ ko woo woowaa woowaat service wax leen ko ñi mu nekkoon en contact ñëpp ñu isolé leen mais bi mu jógee bi mu duggoon ak ñi mu nekkoon en contact ñooñu mu leen maîtriser moo tax c'est tout à fait un problème mm-hmm. moo tax corona bi pour ñu maîtriser ko dëgg dëgg dëgg c'est tout à fait problème léegi nag ñu ni ñu mu nekkoon en contact ñu ni leen da ngeen toog rek ba am les signes. bu mm-hmm. ngeen amee certains signes lu leen jaaxale ngeen dem à l'hôpital mm-hmm. ñu xool léegi donc foofu mën nañu wax ne cas importé la léegi léegi tamit wàllum vaccin bi tamit ñëwaat na foofu mooy mm-hmm. daf na deux doses astral teewul euh, am na am na donc loolu tamit day génnaat fii xam li ma léegi beneen bi tamit dañ koy isolé ah jabar ji jabar ji dafa bañoon jabar ji dafa ne nañ ko yóbbu kër ga mm-hmm. am na fa douche am na salle de am na yëpp loolu tamit mooy réticence bi réticence bi ak réseaux sociaux yi c'est ça mm-hmm. waaw loolu tamit am na foofu si joué si mu am fula mu ne jabar ji eh bàyyi toog fii ñii li ñu wax ma def ko xam nga donc foofu tamit il faut que tamit nit ki jël ses responsabilités tamit feeñaan na foofu. Mm-hmm. alhamdulilah waa ji jël na responsabilité am bañ a wàll kenn bañ nekkaat nekkaat ak en contact ak kenn. Mm-hmm. ba mu wër ba ñu exécuté ko donc boobu rek. tey mën nañ si parmi tant d'autres. Mm-hmm. na. bëri na bëri na effectivement à l'instant tey loolu la ñuy dund. Mm-hmm. le ngi ñëwaat la daan demee kooku tamit Dakar la jógee kooku recevoir uma ko beneen médecin moo ko recevoir kooku tamit Dakar la jógee tailleur la. mu ngi demee këram am fa deux jours trois jours <laughs> feebar ñëw à l'hôpital ñu ko te c'est positif donc kooku tamit Dakar la jógee ñëw. c'est toute une chaîne. c'est toute une chaîne mm-hmm. donc moo tax man dama doon wax nii avant sax tabaski bi man dama doon wax ni et suñu état yi dañu war a jël seen responsabilité. bu mm-hmm. war ñu xool lii nit def nit def na tournée xam nga boole na nit xam nga nit ñi ñëw nañu. dégg nga am na feebar bu ñëw ñu bëgg ni moom kat def na lii donc ñun tam dañuy def lu ñu neex. Mhm. déedéet tey ñun bu defee lu ñu neex ba retour day fekk nii ba affaire bi explosé kan mooy perte. Mhm. ñun askan wi ñooy perte ñun ñuy faj ñooy sonn suñu njaboot mooy sonn te feebar bi dafa doon feebar bi nga xamante ne dafa laaj moyen xaalis. dafa mel ni aspect boobu nit yi xamuñu ko alors. déet xamuñu ko. Mhm. te jii euh, euh, Covid rek bu ñëwee dans dans le de santé presque euh, jour yi ñu fay nekk di nga casque un cent mille francs. d'accord les risques nag yi si nekk bu yàlla defee condition de soins yi normale alhamdulilah di nga jënd bu defee nag cas bi gën a aggravé wu. plus muy dem plus muy cher. plus muy cher plus am risque de de de de. risque de décès yi ak risque de post Covid yi mooy ay asthme. muy ay ay ay feebar yu bari nga xamante ni exposé nit ñi exposé nit ñi nga xamante ni même boo amee Covid ba pare hmm, dina am ay séquelles yu des. Mm-hmm. des fois gis ko am Covid ba pare ñibbi am problème mooy dënn bi dënn bi parce que Covid bi moo yàq virus bi am na mu jot a yàq wàllum bët. fépp daal mën nga am des conséquences post covid mm-hmm. waaw loolu tamit nit ñi dañ si war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. tamit ñun agent de santé yi tamit ñun ñi xamante ne ñooy def ñooy recevoir malade yi tamit il tamit ñu gën a vigilant loolu <laughs> foo ñu gën a vigilant bañ a malade bi ñëw rek nga xaw a am tuuti complex ni noo kii su ma nee ko test covid déet ah, en fait euh, Issa Laye dogguma la mais il arrive que sax nit am feebar euh, war a dem mais comme tu dis rek euh, médecin bi mun na am personnel de santé bi mun na am complexe mais même ki nga xamante ne moom moo nekk këram. mën na ne sama yaram bi day tàng li may yëg euh, c'est pas trop ça mais su ma demee rek automatiquement dañ may diagnostiquer Covid mais loolu tamit est-ce que tamit euh, traitement bi ak prise en charge bi suñu continuer nii du du du du am problème parce que ba léegi quoi qu'on puisse dire euh, la réticence et la communiquer nañu sensibiliser nañu tradition ñi nekk ci wàllum tradition wax nañu ñu yor relais yi wax nañu mais am na ñoo xamante te disent carrément que li ñu formaté la même les chiffres dañu jàpp que ne dañ ko gonflé mais yow boo feebaree déjà nga am idée boobu bu ma demee dañ métier traitement bi wax ak prise en charge bi à ce rythme explosion bi c'est pas demee la fin. waaw ma explosion mu am na ba pare. Mhm. ay on est à ñaata cas à à mille quarante et un waaw nga xam ne mosul am donc te waxoon nañ ko neewoon nañu. après durant la tabaski avec les déplacements yi nii xam nga cas yi day gën a exploser. Mhm. waa mille la moitié. waaw mhm. presque la moitié. mais c' est normal c' normal ñun ñuy nekk système de santé bi xam ñun xamoon nañ ne lii dina am parce que euh, dañ ci gëstu di si xalaat. di xool nit ñi ni ñuy comme li nga wax ni nit ñi ni ñuy dundee parce que ñu bari am nañ ko mais duñ nangu ñëw hôpital waaw ñenn ñi dañuy toog ba mu nekk ay cas yi nga xam ba mu ba mu ëpp loxo ñu doogaat di ñëw te ba ñu ñëw foofu fekk na c'est trop tard waaw bu njëkk dañ doon wax sànq yaa ngi si ñëw dañ doon wax mag ñi mais tey mm-hmm. ñun cas yi ñu recevoir nii nii nii nii récemment mm-hmm. suñu premier cas les trois premiers cas c'est des jeunes tout à fait ça ne pardonne pas. ndaw nañu ay ndaw nañu ça ne pardonne sa mag mag. bu duggee mag parce que am na si benn cas d'essai moo tax il faut que tamit ñu gën a vigilant si si si ñun suñu liggéey sànq maa ngi si doon bëgg ñoom. Mm-hmm, allez-y waaw si suñu liggéey bu ñuy def les prélèvements nañ ko def comme comme ni mu waree. c'est-à-dire. c'est-à-dire parce que prélèvement bi dafa xaw Euh, xawul dafa xaw a kii tuuti sensible tuuti parce que dañuy jël affaire dugal si bakkan bi buñ dugalee si bakkan bi rek mën nga tëb wala nga kii boo nekkee agent bi nga xamante ne da nga xaw a am yërmande tuuti da ngay cox rek dindi te boo coxee dindi da nga yëbb test bi mu négatif ok ka nga isolé woon léegi da nga ko yóbbu grande salle boo ko yóbbee grande salle am na ñeneen ñu fa nekkal ñu toog deux jours mu commencé détresse respiratoire commencé fàtt nga ne xaaral kii ma gën a def rajo scanner le temps nga yëpp muy def scanner résultat bi revenir Covid. parce que poumon yi boo ko xoolee ak scanner bi wala rajo bi dangay gis ni ni ni ni Covid bi yàqee poumon yi ba nga xam ne Covid la fekk boobu c'est trop tard. Mm-hmm. bi gën na feebar yëpp nga ko grande salle mu exposé ñeneen ñi wàll ñeneen ñi xam nga te pour nga récupérer ba dafay jafe te loolu lu ko def ñàkk def suñu liggéey ñu mu waree dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. dëgg dëgg moo tax ñun tamit agent de santé dañ si am responsabilité bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. loolu tamit dama koy lancé parce que dañ koy dund koy dund mm-hmm. suñu cas bi ñu am mu décédé bon si si presque si lool la parce que cas négatif la bi muy sonn ñu yóbbu ko mu def scan scan bi muy génn il était âgé mag la woon tamit du mag noonu sax presque ay quarante ans quarante quatre quarante bon quarante cinq ans xam nga. Mhm. am na ñu am corona ak âge boobu te sax succombé wu ñu. bari na. Mhm. bari na mais suñ trois cas yi yi yi njëkk am kenn ki amul trente ans keneen ki buy am trente ans juste si lay yem xam nga keneen ki tamit trente cinq ans lay am jigéen la xam nga euh, c'est pour vous dire que ni amatul mag amatul ndaw. Mhm. léegi mbir mi lépp ñëpp ñëpp. ñëpp léegi mbir mi ñëpp lay jàpp ñëpp lay jàpp te boo vacciné woo même bu la jàppee sax yaa mooy de risque que ki nga xamante ne vacciné wul moo tax dañu war a jug dem vacciné wu sant bi ñu ngi naan vaccin yi dafa manqué. effectivement foofu laa doon ñu ngi wax euh, ne vaccination bi dafa manqué dafa am rupture de l' autre côté am na ñoo xamante ne ñu ngi bind nañ ko ci réseaux sociaux yi ci presse bi ñi nga xamante ne dañu am manque d' oxygène bu extraordinaire hôpitaux yi amuñu cliniques yi n'en parlons pas euh, donc à ce rythme ça devient incontrôlable. waaw moment bii nii ça ça devient incontrôlable euh, euh, comme li nga wax nii. qu'on comme li nga wax nii loolu am parce que démb démb démb rek maa ngi woon benn dëkk à Kër Massar fi ma taxaw maa ngi den ak benn agent de santé ñu ngi ko woowee benn cas sûrement Covid la. Mhm. ñu ngi koy référé mais référé na ko mais ma dara jàmm ñu ne ko dafa fees. tout à fait. mu dem hôpital Pikine ñu ne ko dafa fees. Mhm. mu dem yeneen centre yëpp ñu ne ko dafa fees. léegi nag muy toog di xool clinique di woote si clinique yi ndax est-ce que dina am ku mën a recevoir malade am te kooku benn malade kese la te tey léegi mille trois cent mille quatre eh, mille quarante et un cas yi kon fu ñu jëm bu dee dañ toog tey ji hôpital yu fees hmm? ba ñu naan dañuy jël si région yi dina jëlee à Dakar yóbbu si yi donc donc loolu yaa yaa donc y problème vraiment y problème moo tax war nañu gën a état bi war na gën a mën a génnewaat les moyens yi. la responsabilité si si parce que boo xoolee <laughs> li si ëpp mais si ñoom la. Mm-hmm. waaw parce boo xoolee nit ñi nangootu leen déglu wala nit ñi boo ñëwee communiqué sax duñu la déglu parce que ñoom la ñoom ñoo njëkk a taxawee taxawaay bi nga xamante ni ëllëg boobu ngay ñëwaat di wax ak nit ñi dañ naan yéen du la ñu fontoo. Mm-hmm. loolu la wax. effectivement te l'état tamit communication am ñoom agent ñoom ñoo ko akimoo man loolu laa ñoom ñoo ko moo di si wax te ñoom waruñu wax. dañu waroon impliquer les les personnes qu'il de santé ñu war a impliqué. Ah, ça c'était depuis jël lépp tekk seen loxo. Mm. ñoom activité bu ñu war a mënti am muy politique muy leneen ak leneen bu leen personnel de santé yi ni leen buleen ko def ñu dégg. bu ñu xool seen seen seen intérêt nañu xool intérêt population bi moo tax tey li am yépp am li tey li am nii moo tax lépp am impliqué les agents de la santé impliquer tamit les agents communautaires les acteurs communautaires. relais les relais te bajenu gox te matron ah les deux hommes les ASC. Mm-hmm. ñu impliquer leen mm-hmm. man. si côté wàll bi ma nekk comme le point focal santé communautaire mm. man sama stratégie bi gën a bi gën a rëy man loolu la man sama liggéey yëpp yëpp yëpp damay impliquer les acteurs communautaires yi nekk sama gox mm-hmm. ñoom laay si premier vague bi bi may sensibiliser ñoom laa woo ñu ñëw bi ñu ñu toog ñu toogee ñu waxtaan ñuy waxtaan amuñu dërëm xamul lu ñu amoon benn la ak benn benn bassin mm-hmm. ñu gën saabu ah jël suñu ambulance. sànq yaa ngi koy wax. bu dee côté wàllum ambulance boo ñëwee Guinguinéo on a vingt quatre postes de vingt quatre postes de santé plus de centre santé. Mm-hmm. deux postes rek ñoo amul ambulance te postes yooyu c'est des postes yu nekk si biir commune bi. donc mm-hmm. dañ jege centre santé mais ñi des ñëpp alhamdulilah léegi am nañ ay ambulance waaye mm-hmm. ambulance yu baax yu normal nga xamante ne malade bu ku mënti feebar rek daan nga mën a teel a jël. andi la au centre de santé ñu mën a jël prise en charge bi normalement centre de santé tamit am na lu bari yi nga xamante ne soxla na ko soxla na ko muy saal yu doy ah muy yenn matériel yi nga xamante ni daanu mën a def suñu liggéey comme ni ko waree yooyu yëpp tamit dafa manqué. Mhm. moo tax foofu tamit dañuy woo les autorités ñu mën a ñëw approché wu le centre de santé le médecin chef. Mhm. ñu mën a taxaw si si si si si ñu mën a taxaw si wàll boobu. Mhm. gis nga suñu safala ak suñu bassin boobu. suñu ambulance bi dañu jël. Mm-hmm. bon maa ngi woon si benn poste santé bi nga poste de Gagny sama cible sama population village c' était onze mille et quelques habitants j'ai vingt quatre villages ba jëlee loolu euh, premier village bi ñu dem dañ toog waxtaan ñu expliqué leen ni feebar am na feebar bi ñëw nii ak nii ak nii léegi lii ak lii moo koy moo ñu si aat mooy ñu am fu penc bu nekk laab na ak jàkka ji fépp mbooloo dajale ñu am fan waa raxasukaay ak gel ak masque ñun leen nag amuñu dara jël benn siwo bi nii sàrdi di laaj village bi njëkk a dem ñu jox ñu cinq mille sept cent def naa mm-hmm. dem beneen village ñu joxaat ñu ba nga xamante ni bi ñu defee le tour des vingt quatre villages population bi rek ñoom ils ont cotisé presque plus de cinq cent mille francs même ñi dëkk même même dëkk si population bi dëkk Dakar dañ leen envoyé test ñoom ñu envoyé seen kii. dama mhm. nekk ñoom soutenir ñu si loolu dañu jëlaat xaalis boobu du kenn ñu si fekk nag du état du kenn waa dëkk bi ñu jël seen xaalis jox ñu ñu xaalis boobu dem Kaolack jënd fa ay bassin jënd fa ay gel jënd fa lépp ñëwaat dafaat tuur comme nañ defoon joxaat ko jàkk ju nekk ñu jox la marché bu nekk ah, penc bu nekk kër chef village bu nekk. nga xamante ni ñoom xamoon nañu léegi lan mooy Covid tam ba ñoom ñu xam ko ba koo si laaj Covid ba ñu respecté lépp mu yàlla def bi ñu demee ba si biir ñu gis ñu waroon accompagner mbir mi ñooñu ñoo deful accompagnement yi. Mm-hmm. ñu gis ni kat euh, vaccin yi bi muy ñëw liñ ci doon wax ak tamit li ñu changé vaccin yi defal ñii bi ñu ni ñee la leen defal ba yooyu yëpp doon ay forme de san yi nga xamante ne après looloo yàq rek sax su su suñu liggéey ba nit ñi delluwaat ak confinement yi mm-hmm. xam nga ñu waroon liggéey amatuñu liggéey xam nga yooyu yëpp looloo waral léegi gars yi retourné nag ni léegi ñi ñii dañu bëgg tëj dañu bëgg caaxaan ba nga mm-hmm. xamante ne léegi bon kenn respecté leen kenn respecté leen looloo waral sax troisième vague bi bu ñëwee am doole mais sant bii nii bu ñu sensibiliser bu ñu waxul nit ñi xam nañu nit ñi ragal nañu léegi nag état bi fii la war a nag dafee li war a def. mu mhm. fexe ñu am mhm. ñu ñu au retour de la tabaski nit ñi ñu xam bu baax fu ñu yem. ñu mhm. port de masque obligatoire xam nga. ñu organiser wu jàkk yeek jumaa yeeg yëpp nit ñi tamit de seen responsabilité organiser même ba état deful parce que nit ñee feebar mais état mm-hmm. man loolu laay wax nit ñi ñooy feebar te nit ñi bu ñëwee duñu gis <laughs> duñu gis maire gis kenn yaay faj sa te da ngay gis suba suba ñu ne la paadiw dee na paadiw paadiw te dee yu bari yi la feebar bi la te feebar bi bu xasee ba am kenn du la si fekk si au contraire sax lay daw au contraire dañ lay daw. te nit ñi ñoo war a jël seen responsabilité état bi tamit dimbali ñu muy médicament muy prise en charge sax dañ ko waroon def gratuitement comme ñu def si mm-hmm. mm-hmm. yi gën a yomb prise en charge dañ koy def gratuitement parce que fii Dakar amul problème nit ñi am nañu koom mais ba demee dans les villages ba demee dans les communes. ils sont plus non bu ñuy ñëw. moyen cinq kilomètres saret mbaam dañuy teg.

chaque jour. ñu ngi def def décharge jox la sama nga dem sang bi boo demee si si zone yi gën a Sénégal loolu moo fa xew. loolu moo fa xew loolu moo fa xew. Covid bi sax dafa ñëw nëbb lu bari mais ba tey li ñuy wax mooy mooy mooy mooy mooy accouchement yi muy PV e yi réticence beeg yooyu. Mm-hmm. yi ba tey nit ñi ñi ngi accouché si seen kër yi. Mm-hmm. ba tey nit ñi ñu ngi accouché ci kaw sareet yi mhm. ba tey nit ñi dañuy dem ba si mais da ngay gis kuy jógee cinq kilomètres wala dix kilomètres sareetu mbaam ngay ngay ngay ngay teg sa malade pour mu yegg si parce que santé bi nga xamante ne mi ngi à dix kilomètres mhm. lu nekk mën na xew si diggante bi te guddi lay doon. Euh, doguma la yaa ngi wax euh, PV yi yaa ngi wax affaire accouchement mais au début dañu doon wax euh, vaccin bi xale waru ko ak jigéen bi nga xamante ne dafa wan lor ñu bëggoon xam xale yi moom exclu na troisième vague bi muy la variant ta ils sont autant plus exposés que les les les les grandes personnes ñu bëggoon xam ndax tey jii fu ñu toll nii jigéen boo xamante ne dafa wan lor ñu ngi ci préjugé yooyu ba léegi wala war na am vaccin bu mu war a jël. bon léegi euh, vaccin yi ba ba léegi dañ ni à partir de la. à partir de 18 parce que wàllum système immunitaire ak tamit wàllum euh, est-ce que cëru xale bi attan na. organisme organisme bi attan euh, vaccin bi ak mm-hmm. yooyu daal parce que tamit il faut ñu xam tamit les vaccins mm-hmm. loolu tamit si foofu tamit nañ koy nañ koy nañ parce que mm-hmm. xale la ëmb bu vacciné woo vaccin bi day jaar ci mu war a jaar dam fekk xale bi. Mhm. tamit mën na si am ay effets secondaires yu bari yi mën na yàq ëmb bi mën na yàq ëmb bi. Mhm. mën na andi euh, ay conséquences ci xale bi. Mhm. loolu moo tax ñooñu dañ leen épargner. épargner waaw bon mais. Euh, du tee. Mhm. mën na leen daal. tout à fait mais nag euh, comme gisaguñu tamit Covid ak femme enceinte def naa bu dee au niveau de Kaolack deux deux. deux waaw deux cas nañ si gisagum. Mhm. Euh, xale yi tamit defe naa est-ce que du benn cas defe naa mais bariwul daal. Mhm. loolu daal moo ñu ñu jël à partir de tamit ñu épargner tamit léegi. femmes enceintes d'accord léegi. waaw parce que tamit euh, kii bi ñu tudd euh, variant bi xam nga dafa xaw a euh, dama naan virus bi sax dafa doon virus bi nga xamante ni dafa doon virus bu grave nga xamante ni man au bi bi ma ko xoolee da ngay gis dafa def ni am ay couronne couronne couronne mooy lan couronne dañoo koy am mooy les rois mm-hmm. xam nga moo tax virus bu buur la buur la te yàlla suñu bopp nag moom moom moo xam lan la waaw te bu ñu demee ba naan variant luy varier mm-hmm. Mm-hmm. xam nga donc risque day varier tey jii nii la meloon suba boo ko xasee ba jàpp fii ni ko lii moo koy rey rek xam nga day fexee soppeeku mm-hmm. andiwaat beneen jëmm xam nga varié waat andiwaat beneen jëmm nga dóoraat boobu. mu génn feneen génn feneen te buy génnaat feneen day gën a am doole. Mm-hmm. buy génnaat feneen dafay gën a am doole loolu moo tax bon c'est quelque chose bi nga xamante ni pour ñu maîtriser ko ak xam ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dafay jafe loolu li ñu siy génne muy les vaccins les vaccins de qualité ak vaccins yu baax parce que vaccins yi bari na nga bon. Sénégal tam ne na ba nee na ñoom tam dañuy defar vaccin yi d'ici deux mille vingt deux donc du léegi dafa feebar baa ngi fi. donc day law du xaar day donc vaccin yi fi nekk nañu fexe ñu jot si xam nga donc des vaccins de qualité su ma nee vaccin de qualité mooy vaccin yi nga xamante ni vaccin yu baax la yu baax la wala doon yu baax suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy borom xam-xam yi fi nekk vaccin bu ñu ko àndi ñu xool ko. parce que am nañu nit ñooñu ñu xool bu baax vaccin bi est baax na wala baaxul bu baaxee bu baaxul ñu wax ñu mm-hmm. parce que vaccin euh, faw ñu xam tamit lan mooy vaccin boo déggee ñu naan vaccin Astra vaccin Sinopharm vaccin mooy da ngay jël virus corona bi ngay jël ci boppam boo ko jëlee hmm? mm-hmm. benn bi mën nga ko rey ba mu dee mm-hmm. wala nga fexe ba virus bi dootul amati njëriñ. ñaar yoo xam ne waaw da nga koy atténuer wala virus bi xam ne dafa dee. dina boo ko jëlee moom ngay liggéey nag boo ko liggéeyee nga def ko ñàq. Mm-hmm. léegi boo ko defee ñàq moom nan lay ñàq virus bi si boppam nan lay vacciner bu la ko vacciner bu duggee sa yaram léegi say anticorps ñoom dañuy dem bu ñu demee dañ koy jàpp bu ñu jàppee virus bi. ñu lijjanti ko xool ko nu mu mel ak nu muy dundee ak nu muy def ba ñu xam ko ñu dem toog tey jii bu la virus corona bi duggee hmm, fekk yow say anticorps xam nañu virus bi lan la ba pare. Mm-hmm. su boobaa ñun dañuy ñëw gaaw ko jàpp rek ray ko mooy tax léegi ki vacciné wu même bu Covid bi fekk ay anticorps xam nañ ko dañuy dem jàpp ko moo tax kooku pour mu am cas grave du yomb. du yomb ki nga xamante ni vacciné yaramam ay anticorps xamaguñu virus bi tey kooku bu ko amee moment bi anticorps am di dem di lijjanti virus bi nu mel ak nu mel noonu fekk kaawam mu ngi évoluer xam mm-hmm. la kooku mooy gën a gaaw a développé mm-hmm. te ki nga xamante ni yaramam xam na ko loolu mooy procédure vaccin wata mm-hmm. loolu tamit foog ñu wax nit ñi nit ñi bu ñu ko xamee daañu mën a kat ni ah kon lii kat hmm, kii la ay njariñ la si ñun ñu mën a dem pour pour kii ko pour euh, dañuy damay ñu tëj ci wàllu vaccin bi rek ci beneen beneen aspect ñu ngi wax ne guddi yi ñu toll rupture de vaccin dafa am wax nga ko sànq si say biir wax Sénégal ñaari ñaari vaccin la am si euh, Sinopharm ak AstraZeneca su ma juumul ñaar yooyu lañ fi lañ fi jot am te seen pourcentage wax nga ko moins de vingt pour cent loo ci seen efficacité mais tey jii on parle de rupture bu fekkente ne man par exemple Fatou Baba dama jëloon li nga xamante ne moom moo di Sinopharm ma war a demoon mu jeex te impérativement ma war a def beneen deuxième dose bi ndax am naa possibilité jël AstraZeneca wala impérativement euh, Fatou Baba dafay jël euh, Sinopharm bi mu njëkkoon jël. xam nga ni ñu defaree Astra ak ni ñu defaree Sinopharm bokkul. Mm-hmm. leen defaree bokkul donc ñoom ñaar leen mélange. Mm-hmm. Mm-hmm. boo defee Astra xaaral sa dose Astra. même bu dee day def cinq six mois tu es bon démb bi ma déggee waaw démb bi ma déggee ba ki dem maa ngi seetaan le ministre suñu ministre bi. Mhm. Abdoulaye Diouf Sarr mhm. à la RTS ñu ngi koy posé question boobu mu ñu mën nañu bi mu joxe si Astra bi mooy les trois mois mooy délai bi gën a jege donc même au delà de trois mois sax y a pas de la wax mhm. xam nga. <laughs> moom la wax. la précision et le détail. Sinopharm bi 15 jours nañu wax. 14 jours xaw ma 15 jours man def naa sama doyodoo Sinopharm mu yëpp. mais teewul li ñu war a def mooy affaire bi nee nañu bon temps bi bi ñu joxe moo ko coût délai bi moo gën a jege donc mën na demaat ba 6 mois espérons si diggante boobu les doses ñu war a jël seen deuxième dose vaccin yi ñëw. xam na ñu mën a jël parce que vaccin yi mu ngi waroon jógee Inde def naa mm-hmm. Inde tey ñoo ñooñu ko gën a soxla mm-hmm. euh, moo tax euh, mooy li may wax sànq rek nañu war a jël suñu responsabilité mm-hmm. am nañu ay boroom xam-xam am nañu suuf am nañu les moyens mais lépp lu ñuy def muy garab sax yi ñu doon jëlee ay France ay kii yooyu yëpp sax dañ ko war a bàyyi milliards yi fi nekk ñu investir ko fii di suñuy usine de fabrication des médicaments di defar suñuy médicaments di ko utiliser di faj suñu bopp defar suñuy vaccin mm-hmm. xam nga mm-hmm. duñu wàll yaar fenn waaw parce que suñu professeurs yi fi nekk ak suñu borom xam-xam yi fi nekk mais fu ñu dem si àddina bi di di di toog fa mais da ngay gis ni ñoom ñooy nekk si kaw suñu borom xam-xam yi fi nekk mm-hmm. fu ñu dem si àddina bi ñoom ñooy nekk si kaw au sommet au sommet donc ñooñu pourquoi pas ñu ñu ñu ni ñuy ni ñuy joxe gëdd ñeneen ñi joxe leen gëdd fii les moyens yi am ñu jox leen ñu defar ñu war a defar dugalaat ko askan wi tant loolu defuñu ko ah ñun duñu am euh, nu mu tudd sax. Euh, résultat escompté. résultat yi ñu bëgg dëgg mm-hmm. duñ ko am te duñu masa moom suñu bopp tamit. Mm-hmm. ñu li ñu am ñu jël loolu gëm ni valoriser suñuy yëf gëm ni lii ñun la xam nga am nañu xam-xam bi am nañu moyens yi ah investir fii liggéey ko mhm. su boobaa da dootuñu dépense si kenn tey jii ñu ngi dépense si Inde Inde moo ñu gën a sonn tey jii ñu ngi dépense si Inde est-ce que li ñu jox baax na parce que ñu ngi wax les les les conséquences yi si nekk ak yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yooyu c'est des trucs yi nga xamante ne xam nga euh, ñuy lu ñu war a xoolaat la mais tey bu ñu jëloon suñuy borom koo xam yi fi nekk ngir lépp tekk seen loxo jox nañ leen moyens kon fi ñu toll nii dépassé nañ ko. Mm-hmm. vraiment mais complexe boobu moo des si ñun ba léegi. Mm-hmm. complexe boobu. Mm-hmm. moo des si ñun bu léegi te bu ñu bëggee moom suñu bopp ah il faut que ñu gëm suñu bopp waaw li ñu fi am ak li fi nekk yëpp. ñu jël ko liggéeyee ak loolu suñu médecine traditionnelle bi tamit ñu gën si ko valoriser. Mm-hmm. gën leen jàppale ba nga xamante ni euh, parce que tamit bon médecine traditionnelle bi moom la gars yi gën a conditionné defar ba mu baax rek. Mm-hmm. waaw emballage yi emballage yi dañ def les rek. waaw te fii am na si mbir yi nga xamante ni ay garab yu baax la tey dangay ñëw. le Covid lii ak lii boo ko jëlee wér effectivement effectivement si suñu si suñu lekk yi ñuy lekk nii. Mhm. les vitamine C nañuy wax si Covid da ngay jël vitamine C bisaab bi am na vitamine C ak yeneen ak yeneen ak yeneen aliments yi fi nekk yi nga xamante ni mais boo ko jëlee da ngay am ay résultats. Mhm. mais dañu fulalul. dañu fulaloon bu ñu gis bu ñu fulaloon rek ñu xam ne lii kat suñu yëfu bopp la kon tey di gis fi yëpp mhm. problème yi ñu am ni yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mhm. am parce que gis nañ suñu li ñëw ah, suñu mag ñu baax ñi am na feebar yu fi daan am mel ne ay tas amoon na fi mais na fi mag ñi jaar am nañu digal <laughs> ñu def ko mu deñ donc tant que delluwaat delluwaatuñu foofu xam nga du yomb pour pour pour pour ñu mën a pour ñu mën a moomaat suñu bopp. Mm-hmm. daf mu nekk nii foofu ñu moom suñu bopp pour mën a lépp lu ñu bëgg rek ñu mën a libre daal. Mm-hmm. libre ñu faj muy économie te boo gisee Covid wa dafay ci jàpp wàllu économie. tout à fait. waaw mm-hmm. waaw après la tabaski nii bu gars yi jëlee seen mesures yu ñu war a jël mais dëkk bi day gën a méttiwaat te loolu yëpp tamit dañ ko war a sóoraale bu baax a baax a baax. le président ñi jël les décisions mën a xam bu baax exactement yan décision ñuy jël ak tamit ni ñuy accompagner askan wi parce que dafa nekk feebar bi nga xamante ni euh, dafa laaj accompagnement ñu bëggee isoler nit ñi bëgg nii ak nii ak nii lu bari dee wàññeeku dañ génnee les moyens tekk stable bi ñu xeex feebar bi tamit dimbali nit ñi waaw loolu daal mooy li nga xamante ni moo si ëpp solo après nag ñu xool fileeg ñu ñu ngi d'ici lundi d'ici lundi d'ici lundi bi ñëw. Mhm. ñu def euh, te waxuñu ci li nga xamante ne moom mooy défi ak perspective yi soxal li di la santé communautaire cellule bi ñu ko daal di créé ci atum 2013 mu bokk ci démembrement démembrement ministère de la santé ak euh, action sociale te jii boo ñu doon wax rek seen i défi ak seen i perspective euh, ay at ci kanam lan nga ñu ci mën a wax. waaw premier défi bi premier défi bi bi may wax ni au niveau de région de Kaolack ak Diourbel ah, ça fait deux semaines ñi ngi woon à Mbour Saly mm-hmm. ak benn organisme bu ñuy wax Church for Common Ground mm-hmm. ñoom am na benn financement bu ñu génnee pour ñu pour les acteurs communautaires pour wàllu mm-hmm. ñu mën a def ay VAD VAD mooy ay visite à domicile ay causerie ay turbine pour sensibiliser c'est surtout porté surtout waaw surtout porté sur le Covid. voilà c'est axé sur mhm. loolu au retour des fêtes d'ici lundi. Mhm. daañu commencé dérouler. plan d'action activité plan boobu daañu mhm. commencé dérouler c'est c'est pour Dakar et non c'est pour euh, Kaolack et et. ay Diourbel am tamit yeneen organisme tamit yu tagaat ay yeneen plan yi nga xamante ni. tamit euh, tamit xeex loolu. léegi nag ah, li jëm si wàllum ah, tamit ba léegi ba léegi centre communautaire bi tamit dafa laaj tamit ñu defaat ay réformes. Mm-hmm. centre com bi mooy ñi ko ñi nekk si suuf mooy les acteurs communautaires les bàjjenu gox les relais amuñu benn accompagnement. ok moo tax instant bii ñoom ñu fa découragé. aywa waaw. non dañ découragé activité amatul hmm. ah, dara amatul. Mm-hmm. dara lu dul. lu dul liñ leen formé woon mooy les pesées hmm? mm-hmm. ak TB ak palu bi ça fait des années. ça fait des années. loolu kese. Mm-hmm. foo leen fekk loolu la wax TB palu. ak pesée. <laughs> xam nga. Mm-hmm. dañuy gis ni nit ñaa si dëkk bi def ay AVC nit ñaa si dëkk bi di def ay glaucome di gumba nit ñaa si dëkk bi def ay diabète. xam nga ak yu bari maladie yu bari bari bari di Ah, les CPN xam nga mooy consultation prénatale yeeg yooyu yëpp mi ngi fi bari yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp nañu war a jëlaat nag ñu dajalewaat yooyu yëpp woo leen ñu toog bu ñu toogee ñu defaat beneen programme bi nga xamante ni programme d' actualité doon. Mm-hmm. man noonu laa gisee mbir ba ma nekkee la point focal centre com au niveau de Guinguinéo man mbir ma noonu laa gisee il faut que ñu defaat beneen réforme ñu gën a yokkaat seen plateau. ba xamante ni dootul yam palu tey bii ak lii dana gën yaatu mm-hmm. dañ leen mën a tey jii un AVC bu nekkee si koñ bi ñoom si zone bi ñu nekk assurer les premiers soins les premiers ñu koy évacuer balaa ñu koy évacuer wala même bu ko évacuer faj ko ba mu wér ba mu ñëw waaw di la jaajëfal bu baax mm-hmm. yow tamit mm-hmm. Euh, jaajëfal ko bu baax a baax moom Issa Laye Diop ah. ma fàttali ne moom moo nekkoon tey suñu invité ci émission bi di SOS e santé Issa Laye nag nekk infirmier d'état responsable de l'éducation et de formation pour la santé waaye tamit nekk point focal santé communautaire bu centre boobu ca Guinguinéo mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi